nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal ñëpp jàmm di rafetlu seeni taxawaay mais di naqarlu yit yenn yi nga xam ne tamit ay affaire yu ñàkk fayda la ay théâtre waaw yi ngeen jël fan yi moom doxul leen dara dara dara dara ay AVC ak ay beñ a dugub ak yu kenn xamul fi ñu leen di woo maanaam ngeen jug takk soltére militaire yi takk jaaj yi jug taxaw xam ne président départ na biir ndakaaru la jëm si euh, fépp foo xam ne tey jii ne maanaam caravane bi fa yéene na faa jaar li mu àndal ci oto ba bi muy dugg biir ndakaaru ba bi muy àgg biir cité kër góor gi na ñenn ñu nekk à assurer seeni responsabilité di wax yéen waa Kaolack pare leen bu baax a baax a baax a baax a baax a baax te xam ne président dina jaar foofu noonu ngeen gàttandu ko gunge ko ba mu génn teretawalu Kaolack fépp fu mu jaar na ñenn ñu nekk jël seeni responsabilité te xam ne tey jii sécurité mu ngi ci seeni loxo loolu nan ci vee bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax moo gën yi nga xam ne nii parfois ñoo ngi ci amaloon benn solo bàyyi leen ci xel bu baax ñu xam li nga xam ne tey jii mooy sunu taxawaay ñu war cee taxaw nit dangay xam li nga war a taxaw nga nekk ci loolu mooy dëgg bàyyi leen yenn yi nga xam ne amaluñu benn sens tay ji tiktok bi ngeen di nekk tey mana nii maanaam vidéo trente secondes yi ngeen di def ak 1 minute yi ngeen di def 2 minutes yi ngeen di def yoy yëpp tay mënoon ngeen ci wax tay ji ci caravane de la liberté bi nga xam ne président Ousmane Sonko tay ji mom la wax mu nekk lo tay ji moy taxaway bi mais nekk ci tiktok bi tay bu ne golo go dangin go AVC yeen ñepp ngeen juk aji duul nangam nangam kërëng kërëng yu kenn xamul yoy bayi leen ko bàyyi ko. waaw di wax waa Ziguinchor taxawaay bi nga xam ne tey jii am nañ ko ba président def li nga xam ne war na koo mën a def lépp tey jii nii maanaam ba départ loolu nga xam ne tey yàlla may na leen ko ak seenub taxawaay ñu réussir ko fi nga xam ne fa lay jaar yëpp yëpp yëpp ba yegg si biir ndakaaru digg dugg si te kër góor gi nan jël suñuy responsabilité waaye caaxaan yi nga xam ne nekke nañ ko ci réseau yi loolu mooy dëgg buñ dee ñëw tamit di wax sunu njariñ ci réew mi di wax li nga xam ne tamit moom lañ bëgg ci réew mi du ñu tee tamit ñun ñi nga xam ne ci suñu biir ñoo am benn taxawaay bi ñu waxante dëgg ñun loolu man loolu laa gëm nan bàyyi yenn yi ñàkk fayda yi Sonko li mu wax bari na li mu wax ci discours bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bari na mais bu leen ci gàddu lenn rek jël ko def ko salan si nekk ci rosée yi ku ne di ci wax amaluñu benn njariñ lin amal njariñ lan ci nekk liin amal njariñ mooy lan caravane de la liberté bii nga xam ne tey jii nii maanaam moo déclenché wu tey jii ci àjjuma ji ñu ñaan yàlla tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin mais nag bu ànd ak kàttan bu dëgër ak taxawaay bu dëgër ak maturité bu mat sëkk sëkk sëkk moo ñu ciy taxa may ndam mooy mën a tax ñu tàmbali ko ci bisimilahi rahmaani rahim terminé ko ci alhamdulilahi rabbil alamin nan bàyyi ay caaxaan te jël suñuy responsabilité ñu baree bari léeg-léeg buuxuma la toog semaine sax defuma laay mais ñaari fan ñetti fan su ma toogee defuma laay billaahi dan may envoyé message booy malika lu xew nangam ak nangam lenn xewul mais nag dañ fee mënta nekk chaque jour ñun lii lan man nekk ci ak di régler suñuy turub ci suuf xam nga nekk fi di wax a wax a wax wax wax bay bëgg a dee am na ci ñoo xam ne bu ngeen communiquer tey jii bay bëgg dee faron am même bu nu génnee tey li nga xam ne tey mooy cible yi ñu war koo kalaate duñ ci nekk xeex bi dafa am ay cible te cible yooyu noonu tey jii nii maanaam saa bu dee yaakaar jàmm rek suñu fitna lay doon ñoom saa bu nu yaakaaree ne tey assuré nañ jàmm jooju muy dëgg si ñoom rek suñu fitna lay doon. kon suñu cible yooyu waruñuy am accès waruñuy am accès fa nga xam ne tey jii saa bu ñu waree toroxal fëlan jëm nit da ngay am bëgg-bëgg nit da ngay am détermination boo jugee di xeex dara pour bëgg cee am géede conse da ngay taxaw am ci fulla am ci fayda te bàyyi affaire fanatique yi ñuy def nan bàyyi parparloogu bàyyi naaféq ji bàyyi caaxaane amaluñu benn njariñ te taxaw tëj fépp foo xam ne tay jii maanaam président Ousmane Sonko jaar na fa na nit ñi jug muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñëpp jug ànd bokk ndey bokk bàyyi jël seeni responsabilité ba territoire bi nga xam ne dugg na fa ñu aar ko assurer sécurité am gunge ko ba mu dugg ci beneen dëkk waaw projet bi war na leen a jaral lu ëpp loolu projet livre de la solution projet Pastef bi war na leen a jaral xanaa lu ëpp loolu fépp fu mu jaar taxaw leen fépp fu mu jaar jël leen seeni responsabilité aar sécurité taxaw jël seeni matukaay ba àdduna bépp xam ne président Ousmane Sonko Sénégal ba Sénégal daj mooy candidat bi gën a assuré euh, candidature am mooy candidat bi fi gën a assuré ab candidature am loolu dañ koy wane loolu dañ koo war a mën a wane. waaw dañ koo war a mën a wane ci caravane de la liberté bii dañ koo war a mën a wane wane ne tey jii kii mooy premier candidat bi nga xam ne tey jii moo gën a valable ci candidat yi nga xam ne tey ñoo fas yéenee jongante 2024 xamuñu ñaata candidat la mais ñun moom suñu candidat bii moom mooy candidat bi gën a assuré parce que peuple Sénégal ñoo ko porté loolu dañ koo war a wane nan bàyyi caaxaan yi te am ab taxawaay am fulla am fayda ànd ceeg détermination bañ fee nekk ay sama mbokk laak ñoo bokk daayiraak ñoo bokk lii yooyu amulunu benn sens li nu bokk mooy pat par kii bi ñu bokk projet bi nga xam ne tey jii moo mën a ñëw tey delloo ñu sunu souveraineté projet bi nga xam ne tey moo mën a ñëw tey tegaat suñu réew tey ci sunuy loxo projet bi nga xam ne moo mën a ñëw tey jii ndaw ñi am seen xalaat ci seen réew di ko exister di ko wax di ko appliquer projet boobu nañ ci xar suñu tànk tubéy mu jaral ñu lu nekk fépp foo xam ne tey président Ousmane Sonko jaar na fa moo xam tey la jaar sab dëkk moo xam suba la fa jaar moo xam ginnaaw suba la fa jaar dëkk bu ne fa lay añee yendu falay fanaan fa lay guddee na ñooñ a mu jaral leen lu nekk mu jaral leen lu lekk li leen mbir ñi jaraloon ci campagne eh, ci ci campagne eh, eh, législative yi lim leen jaraloon ci ci ci ci local yi na ngeen ci jug ñu baree bari taxaw fu ne tey ko dafay ñëw tey jii nii maanaam ci local yi da ngeen a taxaw législative yi noonu di ko xaar ba ay deux heures du matin di ko xaar ba trois heures du matin lii nag du foo xam ne fu mu jaar taxaw fa escale yëngal lu kenn xamul day romb rek jàll ngeen gunge ko mu génn mais caravane la boo xam ne tamit képp koo xam ne yàlla may na la ab oto boo xam ne am nga essence boo xam ne mën ngaa jugee Ziguinchor ba ba Ndakaaru yow kenn dàqu ci caravane bi képp euh, mu jaar dara fumujar jaar man nga ci and ba dakaru scooter ak jakarata lo yor top ci parce que lolo lepp lu ñuy doole la bu yegg see kaolax yéen man kaolax yi nga xamni yep yeena porter projet bi plein len sen jakarta yi préparer and ak président ousmane sonko ba bir dakaru fépp fumu jaar jam ñaajo yeen wa barñi paré len ngeen juk ñew jam ñaajo yeen wa sibi xotaan paré len ngeen jug ñëw jam ñaajo caravane bi bu ñëwee jam ñaajo yéen waa mbuur genn wàll gi yi nga xam ne mënu leen koo kar biir mbuur ñëw leen jam ñaajo nga xam ne jam ñaajo waa tëngéej dañuy jóge tëngéej sax dem jam ñaajo bun bu wala ñu xaar ko tëngéej mais jam ñaajo moom na nekk loo xam ne tey jii nii maanaam nan fa teeru président nan ko fa teeru bu baax a baax a baax jam ñaajo googu nan ko fa teeru ànd ak moom biir jam jam ñaajo ànd ak moom ba dugg si te biir góor gi bu fekkee dafa bëgg a continuer pale sax nan ànd moom parce que ñii pare nañ seeni motif naan fu mu jaar ay trouble à l'ordre public ak yu kenn xamul trouble à l'ordre public boobu nag li li tax ba tey duñ ko réussir duñ ci am ndam ñun askan wi jub ñun askan wi ànd ak détermination ñun askan wi ànd ak li nga xam ne tey jii nii maanaam jaral lañu lu nekk ñu wane ko loolu ñun ñoo ko mën a def ñun askan wi. foofu leen bëgg a jëmee tey jii ne maanaam caravane de la liberté bii coow yi ciy am ak préparer seen i nervi ak préparer seeni nit yoo xam ne dañuy ñëw pour saboter ko loolu nag ñun war nañ see mën a jël suñuy matukaay war nañ see mën a jël suñuy disposition ba nga xam ne maanaam ku yàlla nar a toroxal dong yaa ñuy fekk ñuy dem nga dugg ci ñun nañ ci jël suñuy matukaay nañ ci jël sunuy matukaay taxaw ci témm am ci fulla am ci fayda am ci fit takku taxaw képp koo xam ne nar ngaa yàq sunu caravane bii nii maanaam mu nekk looy réccu àdduna ak waaw nanu taxaw ànd ak détermination projet bii du ay caaxaan mënuñu ni 1960 lan am indépendance tey jii amul benn ministre de la jeunesse boo xam ne tey jii ni maanaam fal nañ ko ci réew mi amul benn politicien tey jii nii maanaam bu mën a taxaw tey jii nii maanaam ñi fi jaar ñëpp ci ay gouvernement yoo xam ne tey ci emploi des ndaw amul. entreprise yi fi nekk genn wàll yëpp multinationaux yee ko moom bu waree jël tey jii mille emplois quatre vingt euh, maanaam neuf cent quatre vingt yëpp seenu dëkk lañ leen di jëlee indi leen entreprise yu français yi fi nekk genn wàll yi ci gën a cher salaire seeni dëkk lañ leen jëlee indi leen entreprise turque yi fi nekk noonu américain yi fi nekk noonu. entreprise yi nekk ci réew mi ñëpp tey entreprise bu ci war a jël tey mille emplois neuf cent personnes yëpp sa dëkk nga ko jëlee indi ko looloo tax sénégalais yi gën a nekk ci ndóol. looloo tax sénégalais yi gën a nekk ci ndóol nan bàyyi ay caaxaan taxaw nan bàyyi ay caaxaan taxaw am fulla am fayda fépp fu caravane bi jaar ñu jël suñuy responsabilité lépp lum leen jaral mu jaral ñu ko lu ko raw te affaire yu ñàkk fayda yii ñu nekk tey ñu bañ see nekk di attardé wu. ay biram su looy li Amadou Amadou Ba di wax bul ko sax attardé wu bu dee ak yaru gi amadu Ba la jéem a seedeloo di la lëndëmal bu dee yaru ñun su lay mën nañoo jàpp ne Amadou Ba la gën a yaru kenn du ko dégg mu wax kenn du ko dégg mu ne lenn mais ab doomu xaram la kuy sàcc Sénégal Amadou Ba la dàq sàcc ñun yaru googu soxla wun ko biram su lay na nga réew bay génne di saw sa tànk yi di génn sa geen bi ci mbeddu Cees laa wax taxaw leen ñu xeex ànd ak fulla ànd ak fayda ànd leen ak fulla ànd ak fayda Sonko lancé message yéen la ko lancé ak ñun ñoo ci bokk yam Sonko du ci message kenn ci yéen Sonko du ci whatsapp kenn ci yéen Sonko du ci woo kenn ci yéen naan mobiliser wu leen bu génnee def discours conférence de presse loolu muy wax moom la ma man wax man mii nekk Brésil lool la wax Amadou Ba bu Pastef loolu la wax Birame Souleye bu Pastef lool la wax El Malick bu Pastef nin koy déggee ngeen koy déggee ñoo ci bokk yam taxaw leen am fulla am fayda Birame Souleye loo mën a mobiliser ci waa Thiès mobiliser leen ngeen dem jam aajo xaar président Ousmane Sonko ànd ak moom biir dugg biir Ndakaaru takk leen seen fit yi takk seen fulla yi takk seen fayda yi takk seen tuba yi ba mu dëgër ñu xam ne lii xeex la du ay caaxaan loolu nañ ci vee bu baax a baax te xam ne tey ñun ñun population Sénégal bépp loolu moo nu mën a may ndam loolu moo nu mën a indil jàmm loolu moo mën a tax tey jii ñun peuple bi ñoo am suñu souveraineté ay nit bu ñuy ànd dañuy waxante dëgg ay nit bu ñuy ànd dañuy waxante dëgg te bàyyi caaxaan yi bàyyi leen caaxaan ay affaire AVC yi ngeen fi nekk tey nekk fi di di di jël leen ko ngeen teg ci suuf ngeen wax ci sunu caravane bi wax ci sunu xeex bi ak préparer motif yi nga xam ne gars yi ñu ngi koy pare motiver caravane président Ousmane sonk bi ay trouble à l'ordre public parce que seen projet yi gis nga vingt euh, deux mille vingt et un même bin ko jàppee it du affaire projet bi taxutoon ñu def ko contrôle judiciaire trouble à l'ordre public bi askan wi génnoon te loolu lan moo tax tey jii section de recherche yàgg fa taxawaay bi askanu Sénégal am. ñun li ñu yàlla may mayu ko benn benn benn benn homme politique ñun ñoo fi am candidat boo xam ne assuré nañ ko kaso moom bu soobee yàlla doo fa tëdd. ñun dañ ko koo assuréel kaso moom du sooba yàlla loo mën a xalaat sa mi génne ci kaso doo ci tëdd lum leen jaral pour nga tëdd ci kaso bi jaral nu nun junni yu ko ëpp pour nga dox say say soxla ci mbedd mi ay élection diñ ci bokk lum leen jaral nga bañ see bokk jaral nañu ñaari junneem pour nga bokk ci parforce ak duma leen duma yu tar ci ci élection yi bu leen jaralee xeex ñaar fukki junneem jaral nañu ko ñu xeex ba tëral leen laa la wax pour li li li li nga bëgg ci réew mi bëgg ko ci ñun askan wi tey jii jàmm jooju am ci réew mi am ci ñun askan wi. lum leen jaral pour loolu bañ a am nag jaral na nañu ko jaral ñu xar ci suñu tànk tubéy pour nga réussir projet boobu pour ñu réussir tey combat bi ñuy xeex ci réew mi nga xam ne moom la ñu yàlla boole te mënuñu koo séddoo. nan bàyyi ay caaxaan réew mi tey bu doon chaque jour mu génne un milliard ci pétrole génne chaque jour un milliard ci gaz ak zircon ak phosphate it du te taxit dañ koy toog di ko séddoo dañ koy def ci économie réew mi def ko ci dundug réew mi bu saaku ceeb waree jar ñaari junni saaku ceeb di jar ñetti téeméer yaa ngi dégg ku ci daan am facture trente mille ñu lay indil facture mille francs yi fi yomb ci ñun liggéey bari ci dëkk bi askan wi di liggéey ba tey jii ni maanaam européen yeeg yeneen dëkku ab waxuma sax ñëpp dëkku Afrique yi développé ba raw Sénégal tamit waaw européen yeeg Brésil bii ma nekk ak Amérique ak fépp ñëw di muudu muudu si Afrique ñun lan moo tax mënuñoo gëm sunu bopp mais tey lu bari boo koy wax ci réew mi ay doomi xaraam yoo xam ne tey munu ñoo xam nu am réew du demee maaxàllaa ku dund am ñeen fukki am at am 34 ans am 50 ans mosoo téye ñaar fukki junni yu mat ci sa loxo bii bu dul ngénte loo xam ne say mbokk koy dajale jëndal lam xar yëkkati fukki junni teg ci sa loxo mosoo liggéey ba am loolu mosoo koo dajale yow kooku tey buñ la nee Sénégal mën nañ koo liggéey ba ngay toog yow di am 500000 cent mille doo ko gëm mais lu mën a nekk ko gëm. doo ko gëm mais lu mën a nekk la mais nan am fulla am fayda gën a takku gën a bàyyi xel sunu bopp gën a xam ne tey Sénégal ñun sénégalais yi ñoo koy defar du maliens yi du burkinabé yi du algériens yi du tunisiens yi du ñenn ñun sénégalais yi ñun lébu yi ñun pulaar yi ñun saraxula yi ñun manjaago yi ñun baynunke yi ñun lawbe yi ñun séeréer yi ñun tukulóor yi ah ñun wolof yi ñun ñépp ñoo mën a booloo bokk ndey muy Sénégal bokk bàyyi muy senegaal ñu jug taxaw tëj jàkkaarloog doomu xaraam yi jële leen fi indi fi ñoo xam ne tey buñ ñëwee suñu bëgg-bëgg lan fii def ci réew mi loolu laa ñëwoon pour wax ko di wax ni askanu Sénégal gépp pare leen ci caravane bi di wax ni ñu ngi waaja colomotif président Ousmane sonk trouble à l'ordre public tëj ko ci kaso bi parce que dossier bi mënuñu cee am dara mais loola seen sari nday lay tàng rek seen sari nday lay tàng ñoom ñi koy pare parce que loola du am tay du am suba du am ginnaaw suba parce que duñ ko seetaan ba muy am kon loola ngeen di pare ci seen sari nday rek lay tàng ci seen sari nday lay tàng jër ci seen sari nday lay tàng waaw loolu laa ñëwoon nag di ko wax di wax askan wi nan préparé bu baax a baax a baax a baax ñu préparé tur bi heure bi waroon naa fekk tey parce que fépp foo dem ci Sénégal 556 communes yi. ah, ah quarante six département yi Pastef dafa dëgër dëgër bay bëgg a dee cellules yooyu yëpp nan ko euh, nan ko euh, kii def ko ay cellules de résistance def ko ay cellules de xeex ay équipe am na ci cellule yoo xam ne tey am na ci ay cent personnes yu ci nekk tey ñi nga xam ne tey ay ndaw lan boo leen xoolee mën nañoo nekk soixante personnes cinquante personnes nan leen def ay équipe ñuy ànd ak troupe bu xale yi nga xam ne ñooy génn ñu xeex xeex bi